asalaamaaleykum mbokk internet yi amati mbegte jàkkaarloog yéen ci seen émission la regard de Momar di leen sant di leen gërëm ci topp bi ak bàyyi xel bi tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci coow loo xam ni dafa tàbbiwaat ci penc bi jëm ba léegi rek ci mbirum Ousmane Sonko bi nga xam ni dafa mel ni du dakk li ci bees nag mooy mbir moomu ñuy wax financement occulte ñu jëlati ko ngàdd ko. ci loosu Ousmane Sonko ni dafa am xaalis boo xam ni toll na ci fukki milliards ak ñaar bu jóge Qatar ñu sotti ko biir senegal jëmale ko surtout nag ci murid yi pour bu ñu ci tollee ñu jàppale Ousmane Sonko mu nekk président de la République loolu nag ñu ni ña joxe xaalis boobu te fare fële ca Qatar liñ ci jublu mooy Ousmane Sonko bu yàlla defee mu jot ci réew mi contrat pétrole ak gaz yi ñu fi signé mu xoolaat ko ba ñu siifewaat ko ba ñooñu gi ci seen bopp boobu tuuma lañu yëkkati teg ci deru Ousmane Sonko mu doon loo xam ne nag lu day waar la waaye fekk si fi ab lim bu takku ci ay tuuma yu ñu jël teg ko ci ndodd Ousmane Sonko dañuy fàttali rek ne Ousmane Sonko li ñu ko njëkk a jiin ba muy soog a tàmbali fël ci wàllu langue politique bi mooy salafiste la ci ginnaaw gi ñuy wahabit la dem nañu itam ba koy dendaleeg rebelle xëy na Casamance ba mu sosoo moo tax yëkkati nañu itam mbirum viol ak menace de mort ci mbiru Adji teg ko ci ndodd Ousmane Sonko mburu diffamation mooy procès boobu mu am ci digganteem ak Mame Mbaye Niang waxal nañ ko fi appel à l'insurrection attente à la sûreté de l'État association de malfaiteurs association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ba ci vol à muy portable boobu ñu ni daf ko sàccoon nangu ko ci ab gendarme bu nekkoon buntu këram ak bu ci mujjanteel bi accusation bii ñu ko teg muy mbirum financement occulte waaye nag xaw ma ku mu bett waaye bettul ndey mbill mi ne Ousmane Sonko am na ay kàddu yu mu yëkkati woon jagleel ko suñu ñaataangoo Pape Alé Niang nit ñii li ñu jógleeg moom mooy di mëne ab campagne de désinformation wala de jabalisation jëme ko ci boppam dañuy ànd mbokk yi dégg kàddu yooyu nga xam ni Ousmane Sonko jagleel na ko woon suñu naataango Pape Alé Niang. cest à ci diabolisation ñoom ci loolu la ñu nekk parce que ñoom xam nañ ni ñoom kenn xooletu leen bët bu rafet. mais man man mii senegale yi yaakaar ni kii ko jub la. kii wax waxkatu dëgg la kii to naag politiciens yu bëri ñoom lu ñuy def rek ba gëmloo sénégalais ni waa ji ak ñun benn lañu waaye maag ñoom du ñu benn mënuñoo doon benn man yàllaa ma ko may maa ngi sant yàlla man dama jub ma wax ko fii mu leer nañ du tagg sa bopp nag mosumaa sàcc alalu réew mi mosumaa jël lu ma moomul mosumaa dugg ci ay dil yu leerul. mbokk yi la Ousmane ko yëkkati woon. ba ko Ousmane ba ko Pape Alé Niang dalalee ca émission boobu ñu tudde woon face à Pape Alé te mu am fan fan fële ca Sen TV mais ginnaaw loolu Ousmane Sonko yëkkati fi na fi yeneen kàddu ci yeneen i jamono ni lenn na rek lañ ko tuumalagul kay Sénégal mooy ëmb na wësën na waaye li doy waar nag ci tuuma lu bees lii mooy daanaka dafa teguwul ci dara ki ko yëkkati mooy. Matar Diop nekk député Benno Bokk Yaakaar fële ca assemblée nationale ginnaaw ba mu yëkkatee kàddu yi ba ubalee penc mi am na waxtaan bu mu sëkk ak waa l'observateur la mu ci wax mooy la tax mu yëkkati kàddu yi mooy ba Antoine Félix Diome ministre du pétrole et des énergies jaaree fële ca assemblée nationale ci session budgétaire. dafa am ay kàddu yu Guy Marius Sagna nekk jege naaye Ousmane Sonko yëkkati woon teg ko ci Antoine Diome di wax ak moom mel ni koo xam ni da koy jiiñ ku ay loxoom setul looloo tax mu ni moom Matar Diop mu yëkkati kàddu yi jëmale ko ci Ousmane Sonko donc dafa mel ni koo xam ni dafa jógoon pour dàggasante dàggasante nag bëri na lu muy jur kàddu yoo xam ni ay sos la muy benn ñaareel bi keroog ba muy yëkkati kàddu yi ci assemblée ci conditionnel la waxe maanaam ci tubaab dafa ni usmaan Sonko óoree óoree nag boo leen ko déggee ci wax mooy dafa mel ni daanaka lu ñu for ci wewu béy wala lu ñu njort wala lu ñu dégg ay nit di wax ci nit loolu itam day wane ni kàddu gi teguwul fu sori beneen bi ci topp. mooy nee na itam Ousmane Sonko am na ab lettre bu mu bind jagleel ko njiitu réew mi pour di sàkku ci moom mu sàmmal ko njabootam ndax ñamu mu jokkalante woon ca biir Qatar xam nañ ni fi ñu ne li gën a wóor mooy mu bañ a doon candidat ba jote ci réew mi donc ñooñu ñu ngi koy sikk mu song ko songu njabootam pour jotaat seen xaalis xam ngeen ni Ousmane Sonko fi mu toll ci digganteem ak président Macky Sall mu ñu ni jiiñ nañ ko mu bind lettre di sàkku ca ka nga xam ni deflanteek moom xëy na moo moo tax mu nekk fële ca kaso bi di sàkku ci moom mu sàmmal ko njabootam xam nga ni loolu tuuma yoo xam ni wax dëgg yàlla lu naqaree gëm la waaye nag olof Njaay dafay faral di wax naan bu no bu wax dofee nopp nopp koy déglu war a weer ginnaaw loolu am na ñaar ñoo xam ni feelu nañu Matar Diop ki ci njëkk di majambal Diagne majambal Diagne bi mu àddoo ci mbir mi dafa ni nag waa société civile nga xam ne dañuy faral di ŋàññ nguur gi ci yorin bu muccul ayib ci yorin wu ñaaw ci yorin wu lëndëm nañu yëkkati seen kàddu yëy yàbbi ci mbir mi ginnaaw moom Cheikh Yérim itam lu ni mel la wax moom sax dem na ba taftal ji ni il faut que ñu créer commission d'enquête parlementaire nga xam ngeen ni bu fekkoon dossier bi dossier boo xam ni fu ñu ko tukkandi wër na dëgër na defe naa du ñu yem rek ci wax société civile àddu ci wala ci wax commission d'enquête parlementaire la ñuy wax kay mooy nañ ko yóbbu ci wàllu yoon parce koo xam ni boobu ba léegi amul dara lu toll ni talfatal ay ni luñ la baal ci wàllu yoon bu fekkee jël nañu tuuma gu mel nii teg ko sa ndodd te mu am fu mu lalu wàllu yoon lañ ko yóbbu waaye duñ ko yemal rek ci pénc bi nit ñi di ko ngawti ngawtee waaye li muy wane mooy li ñu jublu ci lii mooy loolu ñuy wax rek campagne de désinformation campagne de diabolisation te ngeen dégg ko léegi ci kàddu Ousmane Sonko muy benn ñaareel bi itam mooy nañ taxaw tuuti ci article kanaar enchaîné bi article boobu mbokk yi canard enchaîné di ab yëglekaay bu nekk fële ca France mi ngi ko génne woon le 7 juin 2023 le 7 juin 2023 li muy tekki mooy juróomi fan ginnaaw événement yi nga xam ne amoon na fi le premier ak le 2 juin ba réew mi yëngatu. ginnaaw bi ñu àttee Ousmane Sonko ci mbirum aji saar te ku ne xam na bët yi nga xam ni moom la France di xoolee Ousmane Sonko parce que li muy woote ci wàllu politique mooy bés bu yoree réew mi fexe ba nga xam ni sénégalais yi dinañ gis seen bopp ci joriñu réew mi maanaam dañuy nangu lépp loo xam ni moom lañ ko mu mën ñoo jariñ surtout ci wàllu koom-koom te tubaab yi teg ci loxo. kon xam nga kooku ni tubaab yi di gisee taxawaayam ci wàllu politique du doon loo xam ni ñoom arrangé na seeni intérêt ca jamono jooju ginnaaw événement premier et deux ñu teg ci juróomi fan muy la sept ci la article canard enchaîné boobu génn mu mel ni donc am na luñ ci jublu woon maanaam ca jamono jooju ñuy wax mbiru Ousmane Sonko mbir mi mel ni tulleeg màlle coow li am ñu génn ab article boo xam ni. ay la yowén boo ko xoolee ba ci biir te contre Ousmane Sonko ensuite am na leneen lu jar a ràññee ci article bi article bi bañ koy bind lañu tàmbalee mooy ni Ousmane Sonko jullit la te li muy woote mooy ñu criminaliser homosexualité maanaam borom ñaari tur yi ñu def ko ba mu nekk crime maanaam daan yi leen war a daan ñu dooleel ko ni it Sonko dafa favorable à la de mort maanaam dafa bëgg ku rey nit ñu rey la senegal te loolu bu ñu ko yëkkatee def ko ca ba ñuy tàmbalee article bi lenn rek la ñu bëggoon a wone lëkkaloo bu am ci Ousmane Sonko ak frères musulmans yi nga xam ni ñu ci bëri ci ñoom dañu fare fële ca Qatar waaye ba tey nañu xuus ci article bi article bi nee nañ ñoom fi ñu ko sukkandiku mooy ab diplomate marokin moo leen xibaare lu ni mel dégguñu fenn nag fu ñu limee tur diplomate marocain boobu waaye dañ ni rek diplomate marocain boobu moo leen wax ni am na ñu fare Qatar jël xaalis bu toll ci fukki milliards ak ñaar tàbbal ko Sénégal jëmale ko nag surtout ci murid tudd ñu benn tur nag pour bu ñu ci tolloo murit yi laxasaayu fexe ba Ousmane Sonko gañe te lañ cay ut mooy bu gañee ñu xoolaat contrat pétrole ak gaz yi siifewaat ko ba ñoom ñu war cee gis seen bopp mu am ñaari jàngat lu mu yaaj bi ci njëkk mooy yàpp Touba weesuwul ñu ne am na xaalis bu jóge Qatar jëm ci murit yi pour ger leen pour ñu jàppale Ousmane Sonko mu doon président de la République ci jamono joo xam ne lépp lu Touba mës a soxla am na ko ci ñàkku taalibe yi te jéggaani ko fenn misaal bi mi ngi nii rek Masaalikul Jinaan lu tolloog ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar jàpp fanweeri milliards def nañ ko ci liggéey ko ba mu sotti te ci ñàkk taalibe yi rek la jóge ak addiye bu ñuy joxe defe naa kuy def loolu nag. soxlawoo jéegaani xaalis buy jóge Qatar surtout nag mu nekk xaalis boo xam ne lañ ci jublu mooy ger la yëpp Touba mënul weesu loolu. leneen li ci topp mooy parti biñ ni moom lañ ko jagleel mooy ñoom Ousmane Sonko yàgg nañu wone seen njàmbarte ci bu ñu soxlaa xaalis seeni ñoñ dajale ko amul benn campagne de leve de fonds bu ñu mës a yëkkati te. balaa ñu yegg ca àpp ba ñu dajale ko ba mu sax ëpp lim ba ñu laajoon boo leen dee fàttaliku bi ñu fi njëkkee yëkkati campagne de collecte de fonds deux mille vingt et la woon bi ñuy tàmbali deux mille vingt et un Pastef yëkkati ko pour waajal ay nemmeeku tuuram gis la ca xewoon mbir mi patriotes yi dañ cee songu di ci def seen xaalis ba mujj gi mu jaaxal. pouvoir bi ba ak xaaju guddi la Antoine ministre euh, Antoine Félix Diome jamono yooyu moom moo nekkoon ministre de l'intérieur bind benn bataaxal di tëkku Pastef ci dañ koy tas nag xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy jéggaani bitim réew jégul woon ci kenn nag ku dul ci militant patriote yi nga xam ne ña nga woon ci bitim réew waa boobu parti ana lan lay doyee xaalis bu jógee Qatar pour financer activité waaye nag li nga xam ni mën nañ ko nangul kanaar enchaîné ginnaaw li nga xam ni suñu xel ñaar am na ko ca la waral ñu bind article ba ak jamono ñu ko binde ak yàpp gu ñu yàpp tuubaa bay jege yee ñoom ay xaalis bu jóge Qatar pour jëm ci ñoom waaye kanaar nag enchaîné ba tey mucc sa doxoñ Ousmane Sonko loxo ne am na xaalis bu jaar ci loxoom wala xaalis bu yegg ci ay jegenaayam li mu wax kay mooy fukki milliards ak ñaar yooyu sotti nañ ko Sénégal mu jëm ci ay murit yoo xam ni kenn xamul seen tur foofu la article bi am dafa mel ni donc ma jàmbal Diagne Matar Diop ak Cheikh Yérim ñi ngi wax loo Canard enchaîné loo xam ne sax Canard enchaîné yegg foo waxu ko loolu nag mooy campagne de désinformation wala campagne de manipulation rax ci dool yi réew mu mel ni Qatar nga xam ni petrol am nañ ko ba doyal lakk jeexalu ko ana lañ la ñuy soxla réew mu mel ni senegal bu pétrole feeñ ñuy indi seen koppar di ko fi def jëmale ko ci ab acteur politique boo xam ni bëgg nañ bu gañee mu siifal leen ay contrat wax jooju itam yanuwul maana donc lii yëpp bu ñu ko boolee mbokk yi day wane li li tax dëgg wax ji jóg du dara lu dul loolu Ousmane ko wax ci kàddu yu ñu leen dëgtal sànq muy campagne de diabolisation li ko waral nag yomb na dañuy fàttaliku rek ni jamono jiñ fi yëkkatee fekk Macky Sall soo ko toog ci nguur gi traque au bien mal acquis def benn liste vingt cinq personnes yoo xam ne ñu ngi fi woon ci nguuru Ablaye Wade yor ay ndombal tànk ni il faut que ñu càmbar li ñu yor ci alal parce que njort nañ ni nañu ko amee yanuwul maanaa ca la Ablaye Wade dajale woon mbooloo am déglu leen bu baax li ma leen wax ni soobu nañ ci xeex boo xam ni il faut que ñu xeex ko ci ñetti fànn fànn bi njëkk bi mooy au plan juridique fànn bi ci topp mooy au plan politique fànn bi ci topp mooy au plan médiatique mbiru Ousmane Sonko nag ak état dafa mel ni ëmb na ñett yooyu yëpp au plan juridique gis nañ fi nga xam ni fële Ousmane toll Sonko toll ci wàllu yoon nga xam ni ci mbirum Adji Sarr daan nañ ko ñaari atu kaso yoo xam ne dañ da koy tëdd pour corruption de la jeunesse jóge ci manaaf de ak viol menace de mort ak viol gis nañ itam ci mbirum Mame Mbaye daan nañ ko ci fii mois de prison ak alamaanu deux cent million donc bu ñu yebew ni Ousmane fonk ci mbirum wàll yoon xëy na jekku nañ ko te firnde li ci gën a fës mooy jamono yi ñu toll mi ngi ñun nëbb dant bi mi ngi ci biir kaso mu des nag politique ak médiatique politique ak médiatique dafa mel ni nag moo të gouvernement bi ci mbirum Ousmane Sonko firnde li mooy bi mu fi yëkkatee bu yàggu el kàddoom pour mu yeggale sénégalais yi ni que moom li mu namm mooy Bassirou jamaay Faye nga xam ni moom lañ taftal ci moom ci biir Pastef moom lañu ñu utal war a utal parrainage citoyen dafa mel ni lu ko jiitu naa citoyen amul woon waaye boobaak léegi gis nañ ni ko patriote ji songe jël mbiru parrainage ju Bassirou Diomaye Faye def ko seen yëpp bopp ba nga xam ni fu ne ña ngi fay war di pare léeg-léeg sax gis nañ ay gox yoo xam ni yamuñu ci pare parrainer rek dañuy pare ne ba pare làmb seen poos am lu ñu joxe pour jàppale candidat bi loolu li muy wane mooy Ousmane Sonko même bu fekkee ne jamono yii mu ngi ci kaso ba tey taxawaayam ci wàllu politique. amul dara lu ci felleeku amul dara lu ci wàññeeku li muy wane mu itam mooy au plan médiatique gis-gis bi sénégalais yi amoon ci moom amul dara itam lu ci wàññeeku ba tey na ko patriotes yi doon xoole def ko seen leader boo xam ne amuñ ci benn sikk sàkk te amuñu dara dara dara loo xam ni am na jiixi jaaxal ci seen xel ci ay loxoom yu set ba tey foofu la sénégalais yi tolloog moom moo waral nag lu mel nii war a génn ci jamono ji tembe nga xam ne liñ ci jublu du yóbbu ko sax ci wàllu yoon ñu koy àtte nee naa leen sànq ma jàmbal li mu wax ak Cheikh Yérim mooy nañu yem ci mbirum société civile yee ci yàbbi ak ci ñu teg commission d'enquête parlementaire pour wax ji ubale penc mi fii yëg li ñu tàggaleeg élection présidentielle ba nga xam ni lañ doon bàkkee boobu ba léegi Ousmane Sonko ne ak luñ ko mënta waxal ay loxoom set na ñu ut luñ ko gàkkale loolu lañ naan campagne de diabolisation te nag dafa mel ni fi lañ toll tembe waaye nag loo jéem-jéem ci ab mindaafoon suñu boroom dogalu ko danga war a xoolaat sa taxawaay Ousmane Sonko. nguur gi faase na ko wala rajj na ko ñetti yoon ñetti yoon suñu boroom irajjee ko mbokk yi irajjee mooy say mbir fës tas comme jant jigg ba saa saay bu ñu rajee Ousmane Sonko rek suñu boroom irajjee raje nañ ko ci fonction publique jëlee ko fa mu nekkoon direction générale des impôts et domaines inspecteur des domaines et du trésor waaye ñu teg ci ab diir mu daagaan baatu askan wi ñu def ko député ba tey jii moom mooy way politique bi nga xam ni moom la sénégalais yi gën a jox seen bopp ràjje nañ ko ci liste candidat élection législative maanaam liste ba mu nekkoon ñu ne liste boobu du bokk suñu borom irradié def ci xelam mu jóg campagne wër Sénégal ba ba ñu résultat yi génnee ñu gis ni ëpp jege am na limu mu député boo xam ni mësut am ba ñuy politique Sénégal ba léegi radié nañ ko ci fichier électoral ba xañ ko ay liste ay fiche de parrainage waaye terewul saay bu ñu jógee rek mbirum Ousmane fonko moom kenn mënut toog bés te kenn tudd ko waaw koo ne nag jàpp nga ko yaakaar ni nëbb nga ko jant bi te saa su ne ñu continuer di wax ci ay mbiram ba nga xam ni même élection yi ñu dëgmal même bu fekkee bokk ci jëmm boppam kar doom ak kamuy muy joxoñ dana ci am solo lool loolu day wane ni lañ doon jéem boobu ba léegi ci Ousmane fonko dafa mel ni sottiwul. mu jot sëkk nag nguur gi bu fekkee lii bëgg nañ cee jëlee ndam ñu xoolaat seen taxawaay ak seen doxalin seen digganteeg Ousmane Sonko mbokk yi lii lañ leen indi doon tey ci seen émission le regard de Momar Diong di leen sant di leen gërëm di leen soññ ba léegi rek ngeen continuer di abanewu di leen jox di daje ba ay bés yële ñu ñëw ngir seen beneen émission le regard de Momar Diong wasalaam.